publication bi ngir jot suñu vidéo lam yanfa'il dal mu'minin kawnaa jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbokki internet yi bàyyi xel Refane TV Euh, rawatina yéen ñi nga xamante ni yéen a koy yéen a koy bàyyi xel di ko seetaan di leen wax ngeen gën ci abonné ndax luy jëmale tund wi kanam la ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen yéeguwaay ak seen wàccuwaay ñu ngi fii ci boox booxkar la man booxkar la man bu ñu fi ñëwee canaar moo nekk ci cadrage bi di leen ko defal di liggéey liggéey bu baax te am solo tubaarkàlla macha allah waaye ñu ngi fii ci reefan boox yaakaar la man nga xamante ni bu ñu fi ñëwee di dëkkub diine dëkkub diine dëkkub euh, boo xamante ni dëkkub Baay Faal la ngeen xam ne jàng alxuraan ak xasiida ak sikkër yaakaar naa ne moo fi gën a li nga xamante ni mooy fés ñu fi amal benn wàcceeb kaamil boo xamante ni ñu koy defal ngoo xam ne nga xamante ni euh, tubaarkàlla macha allah di kilifa Baye Fall gis nga ko ay ñi nga xamante ni ni leen ko Baye Bali Diouf waxale ñi nga xamante ni jaar nañu fi ñëpp ci ay xalifaam ba ci Baye Cheikh Ndiaye Diouf mi nga xamante ni moo fi toog ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ak rakam yi nga xamante ni ñoo fi des muy Baye Moussa Diouf ak euh, Serigne Abdou Mbacke juuf ñu di leen ñaanal yàgg fi lool te ak taalibe yi yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñëpp di leen ñaanal bu baax a baax waxtaanu yaakaar naa ne commencé nañu ko Euh, ci bismillahi rahmaani rahim dinañu ci génn ci li nga xamante ne mooy alhamdulilahi rabbil alamin dégg nga ko kilifa yi ci jot sànni ay kàddu jàng nañu xatmu bee ba pare jàng nañu ay kaamil yoo xamante ni yu bare bare la suñu gënee xuus ci waxtaan wi waxtaan ak kilifa yi nga xamante ni ñoo fi nekk waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy euh, euh, kilifa yi bàyyi ko njaareem di ci jiital ñi nga xamante ni mooy xalifa bi ñoom ñëpp dinañu waxtaan ak ñoom Serigne Serigne Gueye nga xamante ne mooy xalifa bi ak rakam yi nga xamante ne ëmb nañu ko sëriñ Abibu ak sëriñ Omar Guèye ñoom ñëpp dinañu waxtaan ak ñoom ak ñi nga xamante ni ñooy Baye Cheikh ak rakam yi ak taalu bi yëpp euh, incha allahu rabi canaar loolu lañu dinañu ko laasi ba ci kanam rek ñu dugg ak yéen ci li nga xamante ne mooy waxtaan wi ak li ñu fi taatane lépp di jaajëfal bàyyi baali Juuf bu baax a baax di ngeen ko li mu leen fi lanceel di loo xamante ni lu am solo la mais waxtaan wi day continuer ñu koy wéyal incha allahu rabi di jéglu di ñaan yàlla yàlla may nu fekk yu bari euh, euh, jataay bi dañoo xaw a xoj ñu yéex a ñëw ñu bëggoon itam nuyu bàyyi sëriñ gi xalifa ab sëñ Modou Guèye Ñaay bëggoon a jàll itam ci bis bi nga xam ne moom la Mamour Diouf ngoo xam ne joxoon sëñ Modou Guèye Ñaay boppam ba lii am loolu it la ca topp mooy Omar maam maam maam Samba Diouf mi ñu tuddee bis ni mu demee woon ak maam Mamour Diouf ngoo xam ak itam xalifa bi nga xam ne moo jëkk a nekk xalifa Mamour Diouf ngoo xam ne ba kii ci toog tey di bàyyi sëriñ Cheikh Diouf loolu it bëgg na nu am ci leer. ki fi jëkk a toog xalifa sëñ Modou Diouf ngoo xam ne mooy Serigne Mbaye Diouf baayam Abdou Diouf mii di séexab sëñ Omar ba mu fi jógee itam sëñ Omar moo ko jàpp yor ko ànd rakkam ñu déggal ko. yar nu ci lislaam bëgg nu loon ba mu fi jógee itam ba fi sëñ Omar jógee mu ngi ko jox Baye Ibrahima Diouf Baye sëñ Abdou Abdou Guignane Diouf mii ba mu fi jógee itam moom itam jox ko sëñ Abdou Ndimu mu yor ko yor bu rafet ba mu fi jógee itam baay ba da Diouf mi nga xam ne moom lañu joxoon lislam moom la sëñ Baye gi sëñ sëñ Muudu Diouf ngooxa ne joxe woon sëñ Baye gi addiya mu wel fa njaareem joxe ndigalal siix mii di sama rak na ma jàppal lii addiya boroom du dellu fa mu jógeen comme dañu maa joxe woon addiya maa nga fa ma ne woon waaye jàppal ma mu jox ko Baye Cheikh Diouf mii nag mooy ñaayu xare woo xam ne daa nekkoon ak i rakam ay magam magam yi bëgg ko bàyyi kook boppam muy liggéeyal yàlla waaye fu mu mas di dem itam sóoraale na ne fii mu bokk ab cër la boo xam ne am na fi liggéey taxut muy dem di yàq jikkoom fenn ba danaa da daan def fu mu nekk di liggéey bu waxtu jote bu ñu ne addiya jot na wala addiya war naa ñëw dana fabab toolam jox ko sëñ Omar def na ko Baye Ibra Diouf na ko Baye Abdou Ndimou ba yàlla dogal mu toog fii defe na addiyaam foo mas a taxawe ku ne jar na ca mu ànd ak rakam yi nga xam ne mooy sëñ Moussa mii di bàyyi Moussa Diouf ak sëñ Abdou Mbacke mii xam ne mooy caatam sëñ Modou Diouf ngooxane kon bu ñu toogee fii toogam gi nun ñëpp sunu xel dal na sunu xol sedd na ndax Baye Cheikh toogam gi jig nanu yar nanu dimli nanu sawar nanu ndax gune yi nga xam ne ñoo fi nekk tey di setti sëñ Modou Diouf ngooxa ne ñii nga xam ne tey fii ñu toog tey sëñ Aliou ca jiitoon sëñ Ibrahima topp ci waaye Modou topp ci ak Abdou Guignane mi topp ci ak seen rakk yi ñu ngi toog fii leen ñorut leen lu dul lislaam bëgguñu mbub mu rafet bëgguñu leen lu dul oto sax bu ku ko ci am liggéey tax waaye tiitaru ca taxut laa jóg kon man nanu ne sant nanu yàlla man mi nga xam ne nag dama doon ab jaam ci dëkk bi di seen ab jaam jaamaa di ndaw lu ñu yónni ñoom lu ma ne ci man ñoo ko ci def ñoo ma yar ndax Abdou Guignane meeg sëñ Muudu mii nga xam ne ñoom laa tolloot jamono fu ma ne ñoo may garde di ma awloo fu jub bu ma defee lu jub ñoo ma lu bu ma joxee lu baaxit it ñoo ñoom laa koy gërëme ak ñii nga xam ne nag ñoo tolloog sunu doom yi maaseeg sunu rak yi noo ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax lislaam rek a leen ñor ñu nga ndakaaru de waaye kenn déggul leen ci benn safaan bu dul liggéey liggéey indi ci seen kër gi bëgg lislaam kon Baye Cheikh mi yàlla na fi yàgg sunu xel dal na sunu xol sedd na li ma leen neen sëñ Modou Diouf ngoo xane ne bu bu toggoon añ dana dëkk bi bépp dinañu daje nag sëñ Modou Diouf ngoo xam ne toog na añ kon Masamba Diouf ñuy wax buur toog tangalam raxasu moo tax mu am bés bi tey ñu tuddee ko ko kon loolu sedd na xool te dal na xel te ñi ko fekkee ñëpp xam nañu ne loolooy dëgg fu sëñ Muudu Juuf ngooxa ne toogoon añ dinañu ne Masamba Juuf buur kaay tagam tàngam raxasu kon jërë ngeen jëf. waaw kon loo kon léegi li mu mel ni bés bi dañu ko dippee maam ma Masamba Juuf maam ma Masamba Juuf amoon na ak mbokk ak waa kër gi ndax maam Coro maam Coro moomee ñooñu euh, li tax ñu tudde leen ko taalube gi ak ànd gi ak bokk gu yàgg loolu itam nga faram waaw njuma coro boo déggee ñu wax njuma coro njuma coro dafa juddoo kar la man di jarbaatam ñëpp waaye dëkk bi yëpp da koo bëgg dëkk bi yëpp da koo bëgg kon njuma coro bu dee jarbaat jóge fa ngoogom ñu dëkkal ko dagal nañu koy tool li li li li waa dëkk bi am geño gi am ciy tool loolu la am ciy tool noonu lañu ko bëgge waaye ba nu toogee foofa it njuma coro mu nga dëkkoon fële ca boori Samle jëm ci sëñ Modou Diouf sëñ Mbaye ngi toog bu ñu doon xëccoo it sëñ Mbaye nuy fab yóbbu fa mu bokk waaye nag ñoom ñii dañoo fabaat nag dëkk bi bépp may nuy soxna ndax sunu maam moo ko may soxna sunuy baay noo ko may soxna ñoo nu may soxna ñooy may sunuy doomi soxna dañu noo naawloo kon ñoom nag mënuñu leen a fay dëkk bii tey danoo dem ba sëñ Modou Diouf mu baax ma daana wax ne la dëkk bi daa ooma ne ma dëkk bii li nga ki am kenn amuk ku fi ku ko war a moom it yaa ko war a moomaale ca la ca des ndax yow lu la neex def ndax baali daana wax ne ki ñu wax baali daana wax ne bu nu toogoon di rayante bis boo doxee ci sunu diggante kenn ku la daraam ñemee laal amul nun waa Karlaman bu nuy rayante Omar ma ci sunu biir comme ne baal di ba te te doo ko def dara kenn ñemee koo jàdd mbaa nga laal ko kon jërë ngeen jëf kon mu mel ni ñu ngi leen di baalu ak encore di xam leen ne Serigne mbay Diouf ñëw na fii fekk fi Serigne Cheikh Diouf rakam ñu ànd gàttandu Serigne Mbaye Serigne géey ak Serigne Abibou ñi nga xam ne mooy ñi jógee njaarim tey nga xam ne ñoom la Serigne mu duggee ñaay meñ ñëpp teew nañu fii kon ñoo ngi sant yàlla ci bis bi nga xam ne moo tax ñu tuddee Mama Samba Diouf bés bi mu dégg ak mbokk ak ak taalu bi ginnaaw bu Serigne Modou Gueye ñaay demee ci Cheikh Rafal ba jëlee fa ngërëm andi ko fii ci pak bi dina yu bàyyi Cheikh ak njaboot gi nga xam ne ñoo fi daje sëñ mu Lamine mi it ànd ak sëñ Mbaye ñu daje fii ci kër Baye seex kon Mamady ah, ñu ngi lay nuyu di la siyaar yow itam ndax dafa am foo féete ci yeneen xeeti rajo yi ñu bàyyi la nga laaj Baye Cheikh wala bàyyi Mbacke mi bis bi mu Guèye Ndiaye nu mu defoon ak sëñ Modou juuf ba lii am. mu bàyyeekoo nag ndigal li ci Baye Serigne Guèye mii toog ak rakkam yi ñu àndal ñu di leen siyaar bu baax. di ñaan yàlla ak yoon bëgg sëñ Tuubaa ñu yàgg fi lool sëriñ Seex Njaay Juuf nee na ginnaaw nuyoo bi muy nuyoo mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di ko siyaar Baay sëriñ di ko siyaar nag it rakkam ju baax ji di sëriñ Mbaye juuf di rakkam ju sos ci moom te di ko déglu sëñ Mbaye mu ngi lay siyaar mu ngi lay nuyu yàq say rek waaye yàgg bokki taalu bi yëpp nag bokki bo xak bokki rew mi mepp bàyyi cheikh neena mu ngi sant yalla bu baax dila san lol dila di di geureum mbollem ku fi tew ndax neena sagal ngeen ko sutural ngeen ko te ko bok nit nak bu ngeen amé lu ngeen bok la ngeen bok lang ca mom nga joxat ko ko melni ni dara borom deseelatul la dara mu ngi ni tok moko wax kon sant na geureum na ci googu wal leneen li ci des di bokki julit yi ñëw di bokki taalibe nu bokk dëkk bi di waa kër Masamba Juuf yéen dey Baye sant na bu baax gërëm na bu baax waaye can gi kat mu ngi koy tàmbalee ci njabootam gi nga xam ne daa mel ni dañu leen a du boyal waaye tukki la waaye duy doom ay sët lañu ñu nekk fa nekkin wu rafet di xel xelin xel wu rafet ba xel mii ñu def tey barke alxuraan Baye Cheikh mii xelalut leen ko ñoom ñoo ko xel fa Ndakaaru waxtaane ko ba mu jub man mii lañu ko wax maa ko wax Baye Cheikh Baye Cheikh ne cey loolu day lu ma neex la waaye lu rafet la kon yéen ñi nga xam ne yéen a di njabootam sunu borom ngeen nekk foofee waroon na nekk ci leneen nekk ci lii Baye Cheikh sant na leen gërëm na leen bu baax a baax waaye yéen ñii ñu ko tudde it ngeen ñëw yéen gàcce ngaalaama bàyyi seex ne na yéen noo won démb noo won tey te dem li muy rafet rafet tey ko gën a rafet ndax Omar wax na ko léegi ci wax ji nee na maam yaa maye woon soxna yi bàyyi ñëw maye ko waaye day mel ni nu nit nooy maye waaye kat sant nañu yàlla ci may gi ñu mayeen waaye sa nañu yàlla ci may gi ñu leen di may kon mbir mi bu ñu ko tuddee Masamba mën nañu ne tuddewuñu ko Masamba waaye mën nañoo del si tudde ko Ibou Ndaat muy taawub Omar Matam ndax ci Modou Diouf Ngooxane la waaye mën nañoo wëlbati ko tudde doomi Abdou Thiaw ndax ci Modou Diouf Ngooxane la ndax Daawara pend diggante Daawara Penda ak Modou Diouf Ngooxane soow la rek ak suukar naan rek waaye bu ñu ko tuddee Masamba baay moo doo ngi fii di sëtëb Modou Diouf ngoo xam ne yéen kat li ñu war a def rek lañu def waaye ñoo ngi ñaan yàlla na ngeen barkeel Baye Cheikh nee na mu ngi ñaan mu ngi leen di ñaanal bu baax a baax lii ngeen fi indi nag muy lim boo xamee ne nii faj na lu ne nee na yàlla nay seen asakaay ba faw sant na leen gërëm na leen joogu lii may wax nag ci turu Modou gi mii laa koy wax ndax mooy sama mag waaye ak gàtt jaag mi nga xamee ne nii moom la yàlla dogal muy taaw Baye Cheikh moo ñoo ma ko sant ma di ko wax becc ko ci Baye waaye mu becc ko ci Baye musaa Diouf siñ ab Abdou Mbacke Diouf mii kon gërëm nañu sant nañu bu baax noo ngi ñaan ku fi teew yàll na yàlla defal la sutura xiiwal Baye Cheikh gërëm na sant na Modou Diouf boo defatee nag ma xajal ma def Baye Gayu muy nijaay gaynaak Baye maam gaynaak Modou Diouf boo defatee xajal ma ma def kon man de maa ngi leen di gërëm yéen nag lii nu yàlla jox ndax muus ngeen lool te yal na leen yàlla dolli suturaal yéenay muudu juuf tey yéenay gay tey lëf lii kat yàlla bu leen gémmiñ dugg comme sëñ Abdou mu may arrêté ndax fa ngeen jëm lii mën nañu ciy wax tey ba suba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 بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول نبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم وجعلنا حجة يوم الدين اللهم أنفعنا بما صرفت فيه من آيات وذكرنا بما ضررت فيه من المصلات وكفر بتلاوتي عن سيئات إنك مجيب دعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن والرجاء وصنع ما كان في تلاوته من سحر أو نسيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو سيادة أو نقصان أو تعويض على خير ما أنزلته أو تلاوته أو كسل أو سيلسان أو وقوف بخير وقف أو إدخاب بخير مدخل أو إسهال بخير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمعز من كل الألهان وارزقنا الفرد لا من قده معادي حقه مع والخل واللسان وهب لنا به الخير والشهادة والبشارة والأمان ولا تقدم لنا بالشر والدلالة والعصيان ونبهنا قبل منايا من نوم قفلة وكسلان وعمنا من عساب القبر ومن سؤال منكر والنكير ومن أكل ديدان وبيت وجوهنا يوم بحث وحرق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر عيسى وسق ميسانا بالحسنات وثبت أقدامنا على الزرار واسكنا وسط الجدال وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن عصيم ربي قلوبنا وجل أحشانا وشهاب خمومنا وخائدنا وشائقنا إلى الجنة نعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحدة ومشاحبنا في المهدد ومسبعنا في السلمة والضليلنا في الخيرة ومنقصنا في الفتنة واحسبنا به من الشيخ والأعضاء وكيد أعداؤه يا رحمن يا رحيم اللهم أقدم بالشهادة أجرا وحق بسيادة آمالنا وحرب العافية قدونا واسلنا واجعل إلى رحمتك مزيرنا ومعادنا وصب سجال عفوك على سنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك صادنا وسقط بك سحرنا واحتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وشائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغنا رحناه ونور ما تروناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأصواته وسرياته وأشهابه رضوان الله تعالى عليهم الأجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الكريم المعلوم العليم الرباني اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق الخاتم لما سبق نازل حق الحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ويقضى عظيم طيب لنا أمرنا صحيح لنا بدنا وحب لنا رسلا وطائفنا ودمرا كل حدائق بنا قبل الوصول وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالحين من قراءة Gitu di siyaar itam bu baax sëñ Mbay Juuf ak njabootug sëñ Aliou gep ci turu bay cheikh mi nga xamne moy khalifa xalifa modou juuf nga xone di siar mbokki jullit ak mbokki talibi yep yi nga xamne tay ji jii ñoo ci bat bi tay ngir jëmi sunu borom ak itam jëmi bes bi nga xamne moy bisub bésub modou Modou nga xone nga xamne dañu ko ko tuddé waye ñaan gi pour dëkk bi bépp la waaye pour itam gox bi bépp la ak àddina gépp di lu baax lu ne dina am fu nu ko askanale kon da loolu dama ci doon ubbee rek comme sëñ Baale li nga wax muy kaamil yi nga xam ne yàlla dogal na ñu jàng ko ci bés bi ci bi nu koy waaj ak bi nu fi ñëwee toll na ci 313 muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett mooy ci bés bi tey dañuy ñaan itam sunu boroom tasaare ko ci jullit yëpp ci barkeb alxuraan kon bés bi sëñ bi yàgg na koy taxawe boobu mu koy taxaweek léegi yàlla dogal na nun boobu ñu ngi doon doonee tuut tànk di koy jàngi di jàngi ci daara ji boobu bu ñëwaawoon dana bés bi bés sàngam la ñun ñu nu fekkoon ci daara ji boobu noonu ku ci mel ni sëñ Modou Diouf mais ak maam Daawara Penda mi xam na li may wax sëñ Talla dadaa ñëw daal di ne nal ma kii jàngal isib yi ñu jàngal ko ko moom motli li ci des bi nu demee ba jëmi jamono am na ci guddi goo xamee ne ni fanaane nees ko fi ba bët set ci biir kër gi ma yaakaar ne boobu noonu sax sëriñ Issa Ndaama mi moo ko fanaane woon ak sëriñ Talla génne nañu ko ci pinc mi itam fanaane ko ci ba bët set itam loolu ci sunu kanam la lu nu mën a seede la kon bés bi yàgg nañu koy tàmbali di ko def sëñ bi yàgg na koo tàmbali di ko def bi loolu paasee nag yeesal gi nga xam ne ndaw yi dañu ci ñëw jàppaat fekk si ko ci yeesalaat ko war naa tollu at ci juróom benni at di ko seet koo xamee ne nii bu bés bi ñëwee ñu ànd ko moom tudde ko ko ndaxitam dëkk bi bari na kilifa yoo xamee ne nii bi yàlla dogalee ku mel ni sëñ Aliou ak sëñ Modou Diouf ngo xane ne ñu dajeeg jambar ji muy sëriñ Modou Guèye Ndiaye nga xamé duyel na len li mu len duyel ba nu xamé ker ci nyinu ñi nu fekkoon tam ñu doni seeni bokk yalla dalena baxale baxé won ñu nangul len ko and ak ñom te bu ñu wax bi taalibe yi kon sëñ Ablaye dañu lay jox kaddu gi ngay ngay yegalé ko ñu ngi tuub té jéglu fekke amna lo xamé ni yalla dogal na ñu juum ko ci ñu ngi koy tuub tay jéglu té xamné ni lu jub la ci jublu woon shaytaan rajim bismillahi rahmani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki taalibe yi képp ku fi tew no ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sante di la ziyaara bu baax baax di la màggal ci bés bi nga xam ne bés bu mag la ci bés yi di bésab ku am njariñ koo xam ne ab lëggéeyam kenn koo xamante ne yaakaar nga Seex Ibra wala nga yaakaar Sëñ Tuubaa ci tund yi umple woo Sëriñ Moodu Juuf Ngoxane kon pàkkam bii nga xam ne ñi ko fi jiitu woon ba yem ci loxoy kii toog ak ñun nga xam ne li ëpp ci sunub yar sëriñ Cheikh mi moo ko def ci nun ndax yaakaar naa 1970 la ñu ko tàggoon fii def sowu jant di fa yëngu waaye defe naa nag indi nañu fi sëriñ ca bu am njariñ boobu ku amam xel walla ngay seetlu war ngaa gëm loolu xam ko waaye loolu lépp li ko waral lu ne la ko jur da ngay seet loolu la ko jur nga door a xam loolu la ko indi boo xamee dali ja xam lay ja xam baay ba boo cay wax doo gàgg doo te ay tappale du ca rax kon yàlla nu yàlla fa sëñ Modou Diouf koo xam ne xalifam bi yàlla nag fi yàggal waaye sëñ Modou Guèye Ndiaye mi ko may loolu ak màggam ji sëñ Aliou looluy dox ba sëñ Aliou ngi toog sëñ Modou Diouf ngoo xam ne ngi toog wañeeku nag di siyaare njaboot ak sëñ Mamadou Diop gab mii nga xam ne defena bu doon bok no bok nday ak bay di len siyaare serif bi fi waccu bu bu yago yalla ko sa borom dolli leer <coughs> kawel ay maqamam ci barki serigne touba barki sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon fi nuy jall du gud du gat cier bi ngeen jox nun sunu bay bi muy dem gimmi nanu ndax ku am fukkeet ak juróom ben mu dem nga ne ci say mag ba neugani amna lo fi xam waaye lu loola lu nu ci xam-xam ñoom ñii nu mag yar na ñoo nu ko gën a xam kon xam-xam bi la cay gàtt ga mooy sëñ Modou Diouf gor sa la woon la nekk biiru bokkam ami dëkkandoom yu baax am ay xaritam am ay taalibeem doon gaynde goo xamante ne nii da joxe ba du dese dara dara dara dara dara loo xam ne mën na koo fanaanoo loolu nun ñii sunu mag yar yaakaar naa ne sëñ Omar nee na ma gëléem ga sëñ Mortala jëkk a defar ciw gàmmu ca Thiès Aliou Guèye bu Kër Maysa mi moo ko yaroon sama baay jox ko sëriñ bi ñu jox ko sëñ moo taala Fall mu yóbbu ko Thiès ca gàmmu ga kon loolu doy naa yem ndax ma nataal bee fa ka nga xam ne moom ak njabootam a nga njaarim tey di sëriñ Aline Badara Diouf loola addiya la àndaloon bokk ak baay Cheikh mii wenn waajur ma bokk ak ñoom benn baay Ah, di jéglu bu baax a baax ñi fi teew gaan ñeeg ñëpp di sant ndaw yi nga xamé ni kuy jëmbat ker rek yendu moo tax te mel na ni ker yi mu ngi bëgg bari mu ngi bëgg dël ndax mamadou mi doon wax ak ñi démé ni moom fi mu ni ni lii di daaray sëñ mu juuf ngoo xam ne ousmane male nga xam ne dafa dem bitim réew moom bay astu likkaloog dong yeeg sëñ modou sama moom ak ñi ajjuma bu ajjuma dina ñu wàcceel sëñ Modou Diouf ngoo xam ne ab kaamil boole ko sëñ Abdou Ndimu mi ak ñeneen yi nga xam ne mooy Ibra Faye ñi nga xam ne kenn ku ne booy gis mbir mi ci WhatsApp bi da ngay gis ne bindoon naa ñaari isib kii ne nangam bu ajjuma kenn ku ne boo doon jaay di ko bàyyi nga wàcce ko loolu lépp sëñ Modou Diouf ngoo xam ne xeetam wi yàlla na leen ci yàlla jotale ci barke sëñ Tuubaa ak Cheikh la turu yàlla weeg salaatu ala nabi lu fi waaye wax rek yàlla nañu yàlla jëm jooju nga xam ni mooy mooy sunu lépp di sunu lépp tey ak fépp li ci gën a neex nag mooy Massamba Gaye nag mii ñu ko tuddee Massamba Gaye nag mii ñu tudde bés bii Demba Demba jigéen Juuf moo am mbay kan ma jigéen kan sëy na bu kan sama ndey Aliou Aliou Ndofène bokk ak Massamba Gaye nag lépp kon man mi di wax ak yeen bu dul Aliou may njuma kon bu Omar anding jogo ki rakam ñu la karu di borom mi jom am liggey bu ñu indi fi ci Baye Cheikh bi bu doon délégation bu ñuy lim ci délégation njuma lay bok ndax bal ma seigne moo juuf ngoo xam ne sama yaay ne ci ay nijaayam ba ñuy lotti kër ga ba baye mbaay pena taxawé ne na loo bi gàddaki rakama fi fete moo tax ma jubloo pénc mi kon man sama keur mam la dekk bo jéggee ni nak seigne Omar le, fi jëm ni jëm bagaar yalla yalla yok barke bi seigne Moussa nong lay sant bu baax ak seigne Ousmane xamni yeen dox sunu digante ak baye cheikh di ay rakam nu bok sunu bok te réeróom na len leer ne lepp lu way wax fi yeen moko fa wax waye man mi de ken du am ñaari serigne te sama kilifa ab sëriñ bu dee moom ngay jox sa xaram tabaski di ko jox sa addiya bu la wooyee nga ñëw foo yandu moom nga fa yandal keneen ku la adresse fa dul foofu rek borom dafa bari wax waaye xamul li ca biir sëriñ Habib noo ngi sant njaboot sëñ Modou Guèye ñaay ba ci sëñ Mor mu sëñ bay Guèye ak magam ji toog yàlla na ko yàlla guddal fan yi barkeel la Guèye sëñ Modou juuf jëwri ñoo ngi sant bu baax a baax mbooloo mi sunu doom yi di sët sët di sant sët yi di ñaan yàlla na saa borom gën a fulandi ñaan gi te luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di gërëm. jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. ndongo li Abdoulaye Diouf. di doom ci sëriñ Mboodu Diouf ak soxna Marème Sarr. di sëttu Daawuda Penda. mooy yëkkati kàddu yi nuyoo akub siyaar di ci jiital baye Serigne Gueye mi nga xamne ni mo fi toogee jotaay Serigne mohammed Gueye ñane di ko jox nuyoo Serigne mohammed musa Mbenda ak Serigne Mountakha Talla Bassir mu nuyu ñu leen siyaaral ñu leen bu baaxa baax di leen balu xaq ci bis bu tet bi ñu joggé di ñaan so borom wala ñu jéggal ci barki Seexul khadim di nuyu bu baax a baax di siyaar Cheikh Ibrahima Diop mii toog nga xam ne nii mooy jóge gàpp kër sëñ mu jóg di ko siyaare bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam waaye di ko ñaanal yàlla sunu borom dolli ko kàttan ak wér di nuyu bu baax a baax bàyyi Cheikh Diouf mi nga xam ne ni tey jii mooy xalifa Serigne Mouhamadou Diouf mbokk yi Refane la man kër Serigne Cheikh Diouf xalifa Serigne Modou Diouf Ngooxane ñu ñëwoon fii tey ci ñaanu Serigne euh, Serigne Modou Diouf Ngooxane ah ñu def at mi juróom juróom benneelu at ci ren mooy liñ naa sixième édition Refane site bu ñaa Refane TV ñëw doon leen jëlal kër gi ak daara ji ak màggal gi ñu tuddee woon màggal gi ñu tudde woon màggal gi waa kër maam Gaynak Saabu di maam Buur maam Buur Diouf taalube woon la ci ñoom nag léegi nag ñu ñëw fii ci daara ji nga xam ne moom naka jekk ci la sëñ Mur Diouf ngoo xam ne daa jàngale njaboot gi alxuraan ah, kon daara jaa ngi nii daara ji nag liñ ci naal bari na trop ndongo yaa ngi fii jànge lii aluba yi ngay gis ni am na ci ñoo xam ne ay téere la ñuy jànge léegi jàngeetuñu aluba kon daara ji sëriñ bi kan mooy bàyyi sëriñ daara bi Serigne Khadim Diouf Serigne Khadim Cissé. Serigne mooy borom daara ji mooy jàngal xale yi. kon ñu ngi ñaan yàlla yu fekkee ko déwén yu baree baree bari. di gërëm itam suñu caméraman Thianar ah bu ñu naan Réfane yi ñoo ñëwoon fii tey di leen jëlal béréb bi nga xam ne moom fi la ñuy sàkkoo xam-xamu alxuraan ci kilifteenu Serigne Cheikh Diouf rakam di Serigne Moussa Diouf. serigne Moussa Diouf ak serigne Ousmane Diouf ak serigne Abdou Mbacke Diouf ak sët ak setati ak domi fi nak jigen ñi sax amna ci ñoo xamne ne am nañu xam ci alcorane lo xamne lu yeme yeme la ginaa bu baye Cheikh Diouf nak joge fi dem dëkk bu ñu naa gab ba joy domum yep jange fa alcorane